nga bëgg tee bëgg cee teg àqu sëriñ ak àttanoo ko jamono alaaji Malick du tey alaaji Malick du man leer na jamono alaaji Malick du tey alaaji Malick it du man mooma fuuf fuuf ku ma fuuf doon ndax moo jox ay njabootam tariqa bi boo gisee man defuma ko man du ma alaaji Malick alaaji Malick du man moo ma raw raw ku ma raw raw ka ko raw ka ko raw ilaa seydil wujudi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ko yàlla defal xusuusiya boobu moo tax sama njaboot ku ci bëgg a jël tarixa bi ci man dama naan la mataloo sax àqi way jur ndax léeg ma yónni la ngay diit diital ma yuuxu la ci la bokk di ma ndax man ku yéex rek laa bañ su ma la nee defal lii boo yéexee sama yuuxu la defal ko sama bopp maa leen gën a gaaw fopp te man kor ko yott yott yoo xam ne mel ni kuy bëgg a dee rek loolu la sama rab yi bañ waaw nit da def jëfi nit mu gaaw waaye yee lemmat lemmat mel ni kuy waaj a dee kuy waaj dee rek mooy defee noonu nga xam ne say bal jeex na ilaa eh, nu mu tuddati rek ilaa rabbika muntaha doon ayoo waaye nit day njaxlaf Sénégal léegi ndaw yi loolu ma ci jaaxal dañu tayal la tayal la tayal la man xaw ma ker gi la xaw ma cere ji la xaw ma lan la dañu tayal la koo ci yónni sax dangay ngay yëg ni kii du doomu aadama day dox nii rek waaye du nit c'est malheureux nag nit day am rigueur boo boo tayalee doo am yàlla Sëñ Hadi Touré woy na ko ca woyam boo tayalee doo am yàlla mukk bul yoqi bul toqi bul tàyyi waaw kuy ut yàlla boo ci sawarul sak am ko wóorut te dooroy Cheikhu Tidiane mooy dëgg mag ñi lu ne woy nañ ko pour bëgg ñu am jom ñun waaye ñu ñàkk jom rek ñun bëgguñ ci daara jom lekk naan ataay jaaxaan loolu di moom la am fa la xewee te balaa fa kenn di dugg di nga xam ne yàlla buur la àjjana gële <laughs> ay ni ko yàlla ñagee balaa fa kenn di dugg billaay di nga xam ne yàlla buur la tudd ko yomb na waaye billaay balaa nga fa naan dagaj bañ naan naan uduxuluha bi salaamin say baqata dana génn ci biti waaw ah danañ dugg kañ waaye yàlla moom incha allahu balaa ñoo dugg dinañu wan ne maa yàlla niñ ko yombalee la yombeewut waaw Alaaji Abdou Aziz am na ku gënt gis ko mu wax ko ko mu ne ko waxal gaa yi ne leen niñ yaakaar ne noonu la àllaaxira yombe yombe ko de fekk naa fi ñoo xam ne ba léegi ñu ngi leen téye duggaguñ mu ne bi ma yegsee lañ leen door a bàyyi billaahi wal kitaabi nit a ko gis yaqazatan wax ko xaaji malik si Maodo xaaji malik Maodo it gis na ko yaqazatan mu wax ko ko mu ne ko waxal nit ñi ne leen nii ñu yaakaar ne barzaq noonu la yombee àjjana noonu la yombee yombeewu ni am na ñu ma fi fekk ñoo xam ne lu yàgg ñu ngi fi bàyyi leen waaye alhamdulilah bi ma ñëwee lañ leen bàyyi mu dëppook la ma oustaz Malick Guèye daan wax ca cees te ñeen fukki fan bàmmeelam ñeen fukki guddi alaaji Abdul Aziz keroog la oustaz Malick Guèye génn àddina ñu di ko rob bi Maodo Sylla ak délégation lëbu yi di jaale si ñu ngi deñ denc oustaz Malick ci xalxuus bi sëñ Abdou génnee àddina ma dem di ko ko jaale ji cees mu ne ay dara ma <laughs> noonu la daan def ak ree yu neex ya ba jaww bu rafet bi ah xaw ma de waaye alaaji Abdu de ba mu génnee àddina bi léegi malaaka yi laajatuñ kenn man rabbuka ma ne ko si kon géey lu ñuy la mu ne boo yeggee dañ la naan ndax xam nga Abdou Aziz mu ne boo ne waaw ñu tekki say bagage bàyyi la nga dem boo nakk nakkalee ñu ne la xaaral bi Abdou ne xam na la ci cër yàllaa koy joxe eh, cër yàllaa koy joxe du lu nit di jox boppam wa anna al fadla bi yadillaahi li rasulullaay am dafa am ñu ko doon ci moom te loolu rasulullaay ko moom la rasulullaay li mu amoon lu dug nubuwa bi lépp a ngi fi nubuwa gi rek la yóbbaale kenn dootu ko am. waaye lu dut nubuwa gi. mu ngi fii. ku góorgóorlu yàlla teg sa loxo ci lim war a teg sa loxo. dara warul yàlla waaye lim li nga mérité woo dina ko teg ci sa loxo. nubuwa gi rek la yóbbu. Mm-hmm. loolu sañu ko fi bàyyi ndax mooy aaxirul nabi. mooy xaatimun nabi mooy imaamil mursalin afdalihim wa akmalihim wa ajmalihim xalqan wa xuluqan kooku mooma waaye li ci yiw yëpp ak i maratib ñu ngi koy séddoo ba tey kenn incarné ko nag moo jafe alaaji Malick bokkoon na ci ñi ko incarné rassemble yëpp téye ko Seydi Aboubacar si bokkoon na ci. radiyallahu taala anhu. Alaaji Mansour bokkoon na ci. Alaaji Abdou Aziz 40 ans. mu centraliser yëpp. dara échappé wul. lépp mu centraliser ko. téye ko. ku ci def 40 ans bariwul. waxuma ne amut waaye bariwul. 40 hmm. ans. wax naa leen ko fii àjjuma bi weesu bi mu génnee àddina tey dañ ko séddale kenn àttanu ko maay wax ak yow kenn àttanu ko dañ ko séddale kii lii kii lii kii lii ñii lii ñii lii ñii lii cent onze personnes ko séddoo moom kenn moo yenn woon yëpp yàlla li am dafa bari changement liggéey Guèye moo ko waxoon ca Thiès mu ne jamono yii malaaka yi laajatuñ kenn man rabbuka de mu ne ba Abdou demee ba tey daal dañ la naan ndax xam nga Abdou boo nee déedéet duñ tekki say bagage boo ne waaw ñu tekki say bagage ne la wéyal mu dëppoog la ko Cerno Seydou Nourou Tall waxoon mm-hmm. Abdou yowmal xiyaam yaa ñuy tardel ndax koo romb ne ko acca ñu dem waaw mm-hmm. loolu la ko Cerno Seydou waxoon ne ko Abdou yowmal xiyaam abudu yow bésu ci yaa ñu tardel koo romb nga ne nga téye ci loxo bi acca ñu dem mm-hmm. waaw nettali naa ko bi ba tey sëñ Abdou Al moo ko nettali keroog dëju soxna Asi bu Serigne Mouhamadul Mansour borom daara yi. keroog la ko fa nettali. man lu may nettali dama la koy wax avec précision. préciser la ko. parce que weddikat yee tax. te ni démb rek sëñ Mor ko ngi mu ne dama am dafa am benn waxtaan bu mu doon waxtaan. Amadou Ale Mbaye wax naa leen ko fi ñu bari xamuñ ko woon te ponkalu nitu yàlla la. ñun xulafaa i Cheikh a tiijaan yi te ñi ko xam bariwuñ. sëñ Mor li ko yàlla jox yëpp ci loxoom la ko jaarale. sëñ Mor ne may waxtaan muy waxtaan ci moom Amadou Ale Mbaye beneen sëñ kër si moo waxoon am Amadou Ale mbay ne ko maag yow bu kenn jiitu moromam bul jiitu bu ma jiitu nañuy làng ñun ñaar rek xam ngeen làng mooy ànd nii di dox waaye yow côte à côte nañuy côte maag yow waaye bul jiitu bu ma jiitu mu ne am ko ne woon ci jotaay bi weddi ko hmm. sëñ Mor la ne ah baax na martabaab jàmbur la weddi hmm. semaine lañ ci teg mu dee ma ne ko boo ko jéggalu tit mu nga jahannama ndax balaa moo dee la ñuy rëkki liimaanam maa la ko wax am na wali yoo xam ne sa liimaan la ñuy rëkki nga door a dee dem jahannama kenn mënu ci dara mënu ci dara procureur bu ko neexee léegi mu woolu la te fekk defoo dara léegi ñu yónnee dikk mu ñëw jël si la ñi nekk foofu na naan seen ataaya naan eh ben dañ dégg ne da nga bari mbooloo dañ dégg ne bon dañuy def investigation téye la fa 24 heures ne la suba jël si waatal bu leen neexee ñu jaawante loola 48 heures. buñ ne amuñ ci yow lu ko leer bon yóbbu leen ko prison bi ba ñu am ci moom lu ko leer ah fekk dara defoo dara la ñoom la neex naan nañ seen attaay raay seen kool lu convoqué la. nga ne amul ci yàlla ci awliya omi te benn procureur bu ndaw moo mën loolu. bu amagul amaguli bëñ. ay boy yu tuutee fi nekk léegi di ay procureur sama ñaari doomu nijaay a ngi ci biir. kenn ki moom laa koy ma ne ko ker boo ma convoqué ma wax la tur wi ñu la daan wooyee ba ngay gone day ree bay bëgg a dee ma ne ko ker boo ma boo ma convoqué booy jaay doomu ni jaay ba ma dinaa la wax tur wi ñu la doon wooyee ba ngay gone mu ne nañ ko bàyyi tur wu ñaaw lañ ko doon wooyee ba muy gone ma ne ko maa ngi ko denc ba tey ba ngay gone tur wi ñu la daan wooye sa baqate yi di génn ngay jëndi akara maa ngi koy fàttale fàttaliku ci Sokone sa maam daan jaay akara xam naa sax léegi ñu xam tur yu bon maamam ku mënoon defar akara la sama doomu di jaay la mais dama koy dama koy woo tooñ ko ba sama xel sedd ma raccroché ndem ñoom la yàlla jox boobu boobu pouvoir naan seen attaaya raay seen kol convoqué ku leen neex ne entendre leen ko am nañ ci droit loi moo leen ko may ak ku mën a doon ci senegal nag bu leen neexee ñu ko convoqué ko cooway bari rek waaye dana wuy ji par la force waaw nga ni nag yàlla amul sañ-sañ may waliyam boo xam ne Ayuba Faal lañ koy wax nga tooñ ko mu rëq sa ndigg nga ne yàlla amu ci sañ-sañ ah waaye kon xanaa yàlla nekkatul yàlla yàlla kañ sañ-sañam boo ko génnee ci nguuram dara desu ci léegi la ko shérif di wax ci kër ga xam nitu yàlla xam yàllaa ko gën a jafe ana alaaji saaxo waaw kañ xam yàlla xam nitu yàlla xam nitu yàlla moo gën a jafe xam yàlla uh-huh. ndax yàlla foo geesu gis ko te nitam yi nag fu leen neex nëbbatu te yàlla nëbbuwul moom mu ngi ne fànn te nitam yi nag fu leen neex làqatu ñoo leen di xam ne Serigne waxtaan na ci waxtaan wu am solo démb waaw tabaarakallaahu dinañ ko génne ci Chérif Dabakh TV ndax enregistré nañ ñëpp filmé ko tabaarakallaahu waxtaan wu am solo la waxtaan démb deux heures tabaarakallaahu tudd la fa ay yoon woon ko ne ko soppeem nga ndax boo demee ci nit mu sopp nit danga koy gën a renforcer loolu rek laa ci jublu woon wax koy sa taxawaay ba ca kër Mbay Fall ca kër Massar sa conférence baag yëpp wax naa ko la ci am kon yal na yàlla may la mu dellusiwaat ñu fekkee ko ay yoon yoon ay ati at yaa ñi nga àndal ñëpp jóge Kër Massar Chérif ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara moom tabaarakallaahu dinañ ko jox kàddu ci kanam bu jiitee ba pare mu ñaanal ñu fees la jóge bu yàggut ñu ngi door a tegante bët maag moom muy nit ku baax koo xam ne ñu ngi door a tegante bët waaye mbaaxam moo ko fi indi kon ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara ci barke maamam di nuyu alaaji saaxo bu baax a baax a baax maa ngi koy wax shérif léegi ak ñi ñi ma yeewi ci saal bi ñu dem ma ne leen Thierno Bachir Mountaga Daha Cheikh Oumar néew na ma nuyu ko te ma ñetti nit ana shérif Maamin ana tafsir Abdourahman Gaye ana nitu yàlla bi suufu yanke bi saa yu ko waxee rek mooy alaaji saaxo mi du jaar mukk ci turam ana nitu yàlla bi suufu yanke bi ma ne ko mu nga fa alaaji saaxo mu ne ma nuyul ma ko ñett ñii moom lum lum yàkkamti yàkkamti dana leen laaj ñëw na ma nuyu ko te laajtewu leen kon alaaji nu ngi lay nuyu bu baax Modou Diop ñu ngi lay nuyu ni ma ko waxee léegi mu nga ca Italie Vicenza maa ko jox tarixa bi muy ku baax ku bëgg lislaam ku bëgg tarixa Cheikh Seyd Ahmadu Tidiane yi waaye ku bëgg Cheikh Ahmad Tidiane si almaktum Serigne Cheikh Tidiane si almaktum bu ma demee itali du toog du taxawal du yendu du fanaanal moog du Jooj xam ngeen ko moom it bu ñëwee fii lay xadara tabaarakallaahu ak euh, Alsaan Sekk ñoom ñëpp rek ci gàttal Mbaye Diagne ñoom ñëpp te Mbaye Diagne taalibe moom borom Touba la ñoom ñëpp kenn du ci toog kenn du ci taxaw ba bu may dem ana Ibrahima Faye waaw kañ moom it mu nga ne de présenté naa leen ko fi ba tàyyi moo nekk Grèce moom it saa yu ma demee Grèce rek ñoom laa fay fekk ci xadara ba waxtaan yi ma leen fay defal ak xadara biñ fay def mook Cerno Saar imam ba ñoo ko jiite ak xaritam bi mu àndal ñu ngi koy nuyu bu baax nu mu tuddati ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara Ali Penda Ndoy ñu ngi lay nuyu tabaarakallaahu imaam ana imaam Yuusu Géey waaw kay ñu ngi lay nuyu tey Sherifa jël lenge yi moo tax moom mooy imaamu bari oh, mu nga na lay sol yu ñuul yi tabaarakallah mooy imaamu barab bi waaye dafa leen di bu gan ñëwee rek ñu xajal gan gi taqaddimu qurayshan wala taqdimuha imaam gay ñu ngi lay nuyu bu baax imaam sëy oh. tabaarakallah maali xaaj malik sëy oh. suñu goro alxaaji suleymaan jaañ tey dafa Fadil ñëwul xadara <laughs> di imaam Abdou Aziz Thiam mooy léegi mooy suñu imaam imaamu amoo kat moo ëpp lu muy jiite léegi tabaarakalla oustaz Sidi Ahmed Mbaye tabaarakalla Njaga Joxaani Ibrahima Sow ana Mamadou Sow Modou Sow waaw kay ak ñëpp rek ñu ngi leen di ziyaara ñu jox ko tarixa bi te gaawantu ndax gis ngeen ni asamaan si mel asamaan si nag yàllaa ko moom ñu ñaan yàlla it liggéey bi tabaarakallaahu amul benn bés léegi sax dimanche dañ koy liggéey waaye liggéey bu baax moo gaawut yàq moo gaaw waaye defar gaawul ci laa déggee nag ndekete yàq moom ay seconde lay jël waaye defar ak jafe ah, fi mu ne ñoom dimanche sax dañ koy liggéey fii ci kër gi dimanche naa leen man maa ngi bëgg a dee ndax maa leen di jox añ te <laughs> maçon góor góorgóorlu ci añ <laughs> dama leen di tooñ rek nag waaye bu ñu fi doon añee téeméeri at neex na ma waaye nee naa leen gaaw leen nag xanaa yéen ceeb yi ma marem di togg a tax nag liggéey bi gaawul hmm? <laughs> tabaarakallaahu waaye ñu muñ rek léegi mu jeex ci kàttanu yàlla incha allah ndax fii moom bâche bii moom bâchu naaj la waaye du bâchu taw kana bu ñu yàlla natt woon ba mu taw léegi ñu ne salaamaaleykum wa rahmatullah jotaay bi tas waaye yàlla bari na sutura su ko defee it nawet bi ñu ñaan ci yàlla de ñu ñaan ci yàlla de kaw gi soxla nañ ko de Dakar soxla wuñ taw waaye àll bi soxla nañ taw Dakar sax soxla nañ taw fu fu taw baaxut amut xanaa kañ ni Dakar bindoo ba bu tawee ñu bari fatu ji ñii toxu ñi seen kër yi yàqu waaye du tee nag wax dëgg yàlla nag nga yërëm ñi ko soxla waaw ah, yal na yàlla indi ndoxum jàmm yàlla indi ndoxum jàmm yal yàlla indi ndoxum jàmm ndox ma woon daaw yal na ñëwaat ren ba lu ko ëpp am waaye bu yàlla bu mu yàq dara yàlla bu mu yàq dara fenn bu mu yàq dara ku xool àll bi xool jur gi xool ñi ji seen jiyeef yi ba noppi war nga yërëm ña ji ci àll ba te yaakaaruñ nga lu gannaaw yàlla lu dut loolu yàlla am na leneen waaye moom mi leen xiir ñu def loolu yal na leen ko sàmmal yal na leen ko sàmmal te wàccee ndoxum jàmm ak salaam ndox moo xam ne du yàq dara te lépp sotti bee bañ koy góob di ko muurloo di ko yóbbu ci sàq ya di ko jëriñoo lañ cey jaay ñu jaay ko dugal ci poos yi yal na leen ko yàlla defal ci am na lii ñaan leen yéen ñi sant lii de ñaan leen bu baax a baax yéenay mbokk Cerno Yaxya lii nga laal nii dama lay bëggoon nga ñaanal ci yàlla ndax ren dégg naa loo xam néegu ñax ñax ñu koy xedd di ko jox jur gi man ba ma gën a àdduna ba léegi mosuma ko dégg te ren am na ñu ngay xëy di néegi ñax yi di ko jox jur gi pour ba ñuy dee ah bu ngeen ci waxut bu ngeen ci waxut du baax de. waaw foofu laa jëm. bu ci waxut du baax de. fi mu ne lii xëy hmm, wax ci de. bu foofu laa mën a yem waaye bu ngeen ci jàpp du baax de. waaw loolu moom. bëgg naa nga dégg. xaw ma Australie la. xaw ma yaakaar damay bañ a fen comme man incha allah alhamdulilah ñëpp may seetaan loolu xam naa ko ndax fu ma tourné ci Sénégal ak àddina bi nit ne ma yow laa doon seetaan démb muy Chérif baax TV bi kon lu ma lu ma doon wax te muy dëgg rek war naa koo yokk te war a gën a moytu nag bu baax xaw ma ko war a man ne naa leen man mooy yàlla sax bu ma ko doon def war naa ko bàyyi ndax nit ñi bu yàlla taxul sax naa ko ba ndax nit ñi parce que boo demee ba foo génn téeméeri nit xàmmee la am nga soxla moo tax ma ne bu ma doon def caacaay may weeru ni géej gi ndax nit ñi dañ lay xam ba ne pat ba pare ne pat boo jëfee ba pare lañ la naan saa waay xàmmee naa la <laughs> wallaahi yàlla xam na ko amul fu may dem ci àddina bi wala senegal lu dul nit ay nit nuyu nañ ma ne ma ci YouTube bi laa la xàmmee nàngam ak nàngam ba tey ci mujj loolu nag bu amee nit ki war naa wattandiku musiba la lay jural musiba bi mooy amatoo droit def erreur loolu nag xam naa ko bu baax a baax a baax démb sëriñ moor Diop wax na ko ci biir waxtaan wi dinañ ko teg ci télévision bi ngeen dégg ko mu ne ñi ma àndaloon Mansour Guèye mii ci la bokk Omar Diop bii di filmer ci la bokk mu ne xas bii ma dégg nit ñi di xas nitu yàlla yi ci senegal bu dakkut musiba wuñ gis nañ nañ séenu bu ko ëpp sëñ ko wax démb te mooy dëgg mu ne moom dafay tiit bu déggee ñuy saaga nit yàlla yi dem nañ ba ormaalatuñ benn nitu yàlla yemale nitu yàlla ak nitu mbedd xamatuñ gëddu kenn koo tudd ñeme nañ ko saaga waaw yow bu la nit tooñee yemal ci moom mais looy saaga sëriñam. lu la sëriñam def. ah lu la sëriñam def waaw ki la tooñ yow est-ce que sëñ la tooñ mais yemal ci moom bul yegg ci sëñ Touba yow it bi ki tooñ est-ce que ci la tooñ yemal ci moom bul jàll ci Alaaji Malik Alaaji Malik defu la dara sëñ Touba defu la dara. li sëñ Touba def ci réew mi Alaaji Malik def ko ci réew mi waaye waaye waay ku leen njukkal la tudd waree leen xas. waloo xas seen njaboot. te ku ne doomu nitu yàlla du dara demal pes doomu Macky Sall. maa la jox ordre képp taxaw ne nitu yàlla amul doomam du dëgg. son dara du la ci fekk. di officier dama leen di wax rek xam nga officier sax mën na ne luy officier waaye Macky Sall ñëpp ko xam. dama lay won ne président Macky Sall lu mu am am daraja benn wali yu bi gën a tuuti ci awliya yi moo ko ëpp daraja fa yàlla waaye man maa ma xam naa li ma lay wax amul benn chef d'état ci àddina tey chef d'état bi gën a rëy ci àddina mooy États-Unis boobu xanaa wala moo jóg yaakaar naa ko de su ma juumul ku ñuy wax Donald Trump tous les chefs d'état du monde moo ci ëpp puissance tey moo ci ëpp doole wala déet am na keneen trompe moomu laa la wax nag dara jaam jure ji ko yàlla ràng ci àddina ba muy cëppi cëppi yaakaar ne lu ne mën na ko wali yu ba gën a tuuti ci awliyaa ullahi taala yi moo ko ëpp jëm ca yàlla ëpp ko doole ëpp ko sañ-sañ ci nguuru yàlla gi woo tooñ trompe ngay tooñ nitu yàlla boobu ñemewuloo tooñ président Macky Sall ngay tooñ nitu yàlla boobu ñemewuloo tooñ doomu président Macky Sall la ngay tooñ doomu El Hadj Malick ak doomu Serigne Touba. nañ seetaat mbir yi loo bañal yàlla nangul nga ko àddina lu fi waay bañal yàlla rek nangul nga ko àddina te nag yàlla ci gën a yee ndax moo bind àddina huwa al-awwal wal aaxir wa zaahir wal baatin wa huwa bi kulli shay'in alim moo bind àddina moo bind laaxira ma ne li Serigne Mor Diop wax mooy dëgg de nañu bàyyi awliyaullahi yii suñ leen ormaalatut joxuñ a hadiya nañ teg ci seen der yi lu rafet te bañ di leen xas man aadaani waliyan faqad aadantuhu bil harbi dafa bañ ba tanwin ko dafa bañ ba tanwin ko dafa bañ ba tanwin man aadaani waliyan faqad aadantuhu bil harbi yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci hadisul qudsi ne ko waxal jaam ñi ne leen képp ku ma noonul benn waliyu ci sama awliya yi man yàlla attaqué naa ko guerre yàlla wax de yonent bi waxut yàlla wax ci hadisul qudsi wax ko yonent bi ne ko waxal ma sama jaam ñi ne leen képp ku ma noonul benn waliyu man yàlla mi bind jaam ñi attaqué naa la guerre ku yàlla attaqué guerre di doy doo doy doo doy te yàlla nag xam nga guerre dafa neex neew fi di ut bomb bu lay rey neew fi di gàddu pistolet di la wër day fexe ba lu la yomboon jafe la waaw boobu gën a métti parce que innahu ala kulli shay'in qadir moom bi waru ut fistale sox ko di la di la wër wala di daggi xaatim di la xasuusun saxuusun saxuusun ay du ko ci fekk defarul bombe bi atomique di la wër déedéet wala dóor ko nga rayale téeméeri junni nit yu si seen yoon newul déedéet xam na la xam na ko la jur day fexe ba lu la yombonte la jeex na lu la yomboon rek jafe addina tukki ci sa kaw te dee ko nga bëgg a dee mën a dee wa yaatihil mawtu min kulli makanin wa ma huwa bi mayitin kon man wan min waraihi jahannamu ila yawmi yubaasu looloy alquran waaw wa yaatihil mawtu min kulli makanin wa ma huwa bi mayitin ci góorgóorlu te yaradeku gi ñu wàññi te ñax gu wow nag dina lakk bu tooy looloo ma ci métti weddi ñax gu wow dina lakk bu tooy seetaan nañu Amérique du kii kon nu mu Californie da gis forêt bu natax waaye bu bu bu safara si yegsee la ilaha illa allah ka ka ka asfin ma ka ma ka asfin maakul fa jaalahu ka asfin maakul lum na tax na tax na tax bu safara si yegsee ak dooleem seconde da ngay yaakaar ne lu lu vert mosu fa ne yàlla bari doole man damay toog di ko seetaan damay yéemu àll foore bu na tax waaye bu safara si yegsee day mel ni mosu la ci laa gëm ci laa door a door a déggee nag ñax goow dana la fa mu ñi dee ci ci ci siri yëpp billaay yëguñu woon la fa xew sookewuñu ko waaye tey la fa dee ñu ngi naan nangami million de person seen yoon newu ci fi may jeexale jox ko tarixa bi rek ñu mos ci lii waaw kañ waaw kañ waaw waaw wallaay wallaay jërëjëf joxaan ni incha allah yàlla def wax naa ko fii keroog yàlla dafa yebal Seyduna Jibril mu ngi ci téere bi xaal tafsir bi ci benn dëkk ci Kuufa mhm. ci wetu Màkka am na ñu ne tey sax soriwul Turki bii ne ko alagal ma ñëpp jibril ñëw ba sëpp dëkk bi fekk juróom-ñaar fukki junni ñu nga fa di jaamu yàlla ni ko yonent yi daan defe soixante-dix mille personnes mu sëpp dëkk bi bugg leen a alal xool ni ñii jaamukati yàlla lañ mu wëññee ko dem ci boromam ne ko dëkk ba nga ma yónni day azza wa jalla mu ne ah, mu ne ko ba ma ko sëppoo bëgg ko alal gis naa seen kiliñot yi ndax jullit ñi seen lumière yi day kiliñote jullit dafa am doole malaaka bay balay alak fen day am signalisation yu jullit ñi day clignoté comme lamp buy clignoté moo xam ne ñii ay jullit la kenn ku nekk bu clignoté dana xam li nga defal yàlla mu xool delluwaat ci boromam ne ko fi nga ma nii pour ma alak leen juróom-ñaar fukki junni nit a nga fa di jaamu yàlla ni ko yónanti yi daan yàlla ne ko ñooñu laa wax nga tàmbalee ci ñoom. ah yàlla yàlla dara safu ko mu ne ko te boo fi dël seetee di ma wax leneen ma effacé la yow ci sama liste dootoo am. Jibril dégg ndigal benn mbaggam la la roof te mu ngi juróomi téeméeri mbagg am na ñu ne juróom benn téeméeri mbagg la yow. benn la roof rek mu sar ba ci juróom-ñaari suuf mu yëkkati ko naaw ñoom bi ñuy yuuxu waa asamaan a ngi koy dégg mu dëpp ko suñ borom ne ko noonu laa ko bëggee nag waaw ba mu defee mbugal mi ni ko ko yàlla sante ba noppi dellu nag ne ko waaw suñu boroom lii lu tax mu ne ko waaw kañ ñu seen jaamu yàlla gi dañ ko yemale ci seen bopp terewuñ lu bon naqariwu leen ma boole ne nag ñoom bu ñëwee fii nag ma séparé ñoom ma yóbbu àjjana ñeneen ma dugal safar fekk seen dem warutoon a jot kuntum xayra ummatin waaye ci charte taamuruna bil maaruf wa tanhawna anil munkar balaa ñoo gën kenn ñun xeetu yonent bi yàlla na yéen a gën ci waaye ci charte taamuruna da ngeen di digle bil maaruf ci def lu baax ak njëkk te jiitu ca wa tanhawna da ngeen di tere def lu bon ak wax ko te jiitu ca bàyyi wa tuuminuuna li ma ca gën a neex nag yéen ñi koy def wa tuuminuuna da ngeen gëm billaahi ci yàlla yàlla ñu ci yàlla boole kon bu kenn xeeb boppam ku toog ak as mbooloo luñ tuuti tuuti sa grain de yàlla nee na wax leen ko doonte nag jamono bii ñu toog boo baree loo naan yàlla sax ñu naan eh dimbale ñu bu ñu tojal gënoo ñoo ragal yàlla gënoo ñoo bëgg yàlla foo ko dégg seytaane la dawal léeg-léeg sax sa ndey wax la ko bu ko ne seytaane nga de waaye xool ko bëtu seytaane te jóg eh doom bu ma tojal barki démb dong nga fi jub mënoo maa wax lu yàlla xam loo ma gën a mën na la ko wax di yonent bi kañ ay baayam ñu nga toogoon te mën na leen wax lu yàlla wax si loo xam ne xamuñ ko jeex na léeg-léeg ci sa waajur lay doon léeg ci say frère léeg-léeg ci say sœur bu dee jigéen sax nga muuru muuru bu dee nga xool ko ciw yaakaar na ne moo gën a bëgg nit ñi yàlla muuraay du noonu noonu la yow muuru woo bàyyi ko mu muuru jeex na bu kenn xeeb mbooloo foo toog ñeme leen wax leen li yàlla wax ci kaw nag mu daarante Mm-hmm. ak stratégie bu julli jotee nga ne acca ñi julli léeg-léeg sax nga dégg ko ne moo waaye toogal gënoo ñoo ragal yàlla eh, waxtu wi demagul fenn boo waxee ne julli jot na ñu wax loolu yow demal jàppi rek ñu allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah léegi nga bu wax ji bari yow del jëf bu dee sa biir kër it kadalika njaboot gi léegi balaa may dee nag ñu naan la njabootu ganaar def ko njabootu ganaar yaa ko def njabootu ganaar boo ko defee njabootu ganaar muy njabootu ganaar waaye boo ko boo taxawee naan léng léngéeral ci biir kër gi naan njabootu ganaar la day dañuy jiitu nga topp ci loolu mooy lan njaboot boo ko yilifee mënatoo jiitu jar daf jaru ko na dem nga dem balaa fa dem di dàqe yow ma yafirul maru min axihi wa ummihi wa abihi wa saahibatihi wa banihi lu tax li kulli imriin minhum yow ma isin sha'nun yuxni kon ñu ngi leen di sant ñu jox la tariixa bi. yees lu may kaay dem. wala boo demee fekk oto bu baax nga dugg ci garage di xar mu départ dem jékki-jékki ñu ñëw ne la saa yi looy def ci oto bi da ngay Fatick ji ñu ne wàcceel bii daa paan demal ci bële bay dem ak yi ne le du noonu <laughs> jeex na waaye yooyu wax naa ci ba pare ijaaza yi caaxaan la rek yaa ma neex cam na yaxya lii rahmatullah alayhi wa radiya anhu moo ma ko waxoon ca këram mu ne baaba mam maska lam ma waxoon yegsi na nee na mam maska moo ko ko waxoon ca Medina Baye Mass ne ko yaxya mu ne ko am ah, mu ne ko li dal tarixa yëpp dana dal tarixa tijaan mu ne ko te ci ñaar rek la koy jaare ijaaza yi ak asabul ahzabul awraat yi mu ne dina dem a dem a dem ba jox ñaari saako yi dugub nga ijaazaal ko bañ mu rëcc la. Cerno Yaxya mooy wax mu ne maam Maska moo ko ko waxoon mu ne ko dinañ dem ba ku la jox ñaari saako yi dugub nga ijaazaal ko bañ mu rëcc la man maa ca ne toog ne ko Cerno léegi ñaari junni la. ku la nuyoo ñaari junni ñaari yoon nga ijaazaal ko bañ mu rëcc la ndax ñaari junni yi. yàlla nangu di la jox yenn somm yi moom bu soobee yàlla di nga ko warlu door ko warlul ko gannaaw àjjana mu ne beneen bi ci des mooy ahdabul awraad mu ne maam maas ne ko danañ dem ba jëmmi jamono ku la ne may ma xisbul baxri nga ne ko jëlal may naa la ahzab bi yëpp ndigal ndax bëgg dara ja mu ne maam maas kaa ko koo am na man gis naa ko ñu ijaazaal koo xam ne biñ ko ijaazaale ba pare waa ji da ko ne góor gi da nga man xaadir la billaahi te day def ku ñëw rek mu jox la mu ne ko lii lan la mu ne ko ijaada mu ne ko góor gi da nga juum de man li ma lay fréquenté yëpp xaadir laa de mu rek mën nga koo garde mu ngi ci réew mi ijaazaal koo xam ne ferul ijji ndax bëgg dara ñu. si Seydina Cheikh nee na sama tarixa bi ku ko mayee te amoo ci ndigal yow mi ko mayee boo amoon tarixa génn nga ci tarixa bi maanaam boo bëggee daraja ba jox nit ki tarixa bi yow amoon nga ko bu wér te amoo ijaaza yow mi ko ko jox moom amul dara innocent la xamoo waaye yow mi ko ko joxoon la nga amoon fecceeku na amatoo. bëgg daraja jar na ko jaru am na ci kilifa bu mag buñ mosaan di dem ci Cerno Yaxya li dañuy jar ci Cerno Moussa Kelli maama Ousmane Kelli ma la mu ngi jëkkoon fii Pikine Lansar nitu yàlla bu mag borom kachu ma ànd ak ñett lañ ak man muy ñeen ma ñëw mu xool kenn ki bési àjjuma ni tey ne ko hii yow di nga joxe tarixa bi te amul ijaaza moom comme Thierno Seydou Ndour mi ni mu daan waxee noonu la daan wax bokk na ci ñi doon noonu Thierno Seydou Ndour moom daa wax ne ay dara Abdou Diouf du fi jóg léegi ndax man bër bu set pale laay fanaan ci ñi koy garde laa bokk mu ne ma defaluma dara dama koo bëgg ci sama xol la ma ne mu ko ci sama xol su ma liggéey bu toll noonu ne mu ne mu ne ma man pale lay fanaan man ci ñi koy garde laa bokk yàgg na Moussa Kelly te keroog bi mu doon noonu maam ma aw calaw bi mu demee calaw maam ma aw paralysé na lu ëpp juróomi at jógut fi mu keroog bi jar na Moussa Kelly di ñëw la ne solal leen moom ñu solal ko mbubu mu ne ñoom képp gàttandu ko ca bunti kër kii moom a doon te moom Thierno Seydou la doon noonu na musaa Kelly dafa ñibbi si fii Lansar paralise moom it ba ni génn àddina dañ koy meeb nopp yi dem ku ñuy wax si góor gi si mu ngi dund mu ngi fii Pikine ba tey boo mosaan wax dara Thierno musaa Kelly mooy ñëw ci nopp yi 결노 결 내나 mu ne wuu te génne gi ci biir nopp la koy dëpp waaye bu ci cofee benn baat rek li ci des yëpp la koy dëpp xam nga yàlla moo bëri moo bëri benn baat rek li ci des yëpp da koy dégg góor gi Mbay mi du xamoon ngeen moo jur Abdou Aziz Mbay bi nekk TFM dafa taxoon xam nga nopp yi neexul moom alaaji Malick bokk na ci ñi alaaji Malick yar mu daan dem tool yi moom alaaji Mbaye lu bëri nettali na ma ko ci alaaji Malick mag Serigne Habib bu Serigne Mouhamadul Mansour mba bu Serigne Mbaye Mansour mii xalif général de Tidjane Habib ku ko jege woon la góor gi alaaji Mbaye nopp yi dafa demoon bay wax ak moom nii daanaka doo du dégg waaye buy jottalil Alaaji Abdu fii nga toog lay toog Alaaji Abdu toog fii lu Alaaji Abdu wax mu dégg bés may waxtaan nag moom ne ko waa góor gi yow lu tax ñun bu ñuy wax ak yow dañuy am coono pour wax ak yow te yow bu sëñ Abdu di jottali fële ngay toog mu ne kook di waliyu bi yàlla balaa balaa balaa moo wax sa fekk dégg naa ko bu yàlla moom moom it ah ku Alaaji Malick yar ngay xëy di gis Alaaji Malick man ñi tombeeg ak ah, Seydi Alaaji dama leen dama leen ñëwee ba faf i ñaanee leen man bu ma billaay bu ma fekkee woon ak ah, Seydi Alaaji Malick du ma ñaan tarixa damay xëy rek di ko xulli rek bu yeboo mu ne ma doom yaa mën a xoolee barki yàlla du ma ñaan tarixa bi damay toog rek bu ma xëyee rek ñëw di ko xool su ma ko xoolee ba sama bët yi fenn rek ma dem ñibbi laa ilaha illallah Seydul Hadj Malick ah xanaa ñi ñaan wér di dañoo gis lu gën a rëy loolu naa am na nag ndax tarixa bi waaye bu ma ko fekkee woon du ma ñaan tarixa bi damay xëy rek ko xool ko kese moom Seydul Hadj Malick su ma paree dem ñibbi su ma demee it dinaa góorgóorlu jéem a julli su ma mënti julli it faf ko baax. Ah, nit ñi xamuñ xamuñ yàlla la nit ñi xamuñ yàlla yàlla mën na la may ci ay nitam lu mu mayut boppam loolu la nit ñi xamul yàlla mën na la may ci ay nitam lu mu mayul boppam yàlla mayul boppam tooñ moo wax ne lu ne mën naa ko ba mu des tooñ te dañuy tooñ yàlla mu di ñu baal wala de nga tooñ sa moromu jullit yàlla ne sama yoon newu ci Cheikh Sidi Ahmada Tidiane yi taxaw ne soo ko bàkkoowul maanaam tooñ bi bàkkoowoo mu ne boo ëllëgee bu tax borom taxawee pour fayeeku la kenn du laal sa yiw am naa magasin yoo xam ne yàllaa ko moom jox ma ko man Cheikh Sidi Ahmada Tidiane hmm. ca la yàlla di ubbi ma fayal sama taalibe te kenn du laal seen yiw ah waaw hmm. waaye nag day ànd ak fala yaamanu makrallahi nga bañ di tooñ ci sa bànneexu bakkan rek naan Seydina Cheikh dana ko gàddu du gàddu dara day fekki tooñ buñ ko toppee du jeex sëñ Moroom koy nettali li démb fekk ma koy wax yu bari ci baayam bëgg mu jaaraat ci ndax dama koy nett li nit ñi foog ne ay duufal la waaye yëpp mu jaaraat ci démb ma kontaan ndax dama koy nett te nit ñi booy nett li te borom newu fa dañ naan kii da koy duufalal rek ma di ko laaj ma di ko wax nag ne ko toujours damay nett li ne Seydul Haaji Malick sa baay sëñ Aline Diop El Hadj Malick a ko topp Seydou El Hadj Malick a ko tuddee Serigne jubal Seydou El Hadj Malick ku ànd ak moom jub ak noo mën a mel ndax dafa yéeg ci maqamatul istiqaama istiqaama te moo gën a jafe gis nga maqamatul istiqaama boo ci yéegee ci gàttal téere bi boo ko téyee noo ko war a téyee danaan la ni ma téyee sopp ma ko lii la bu baax a baax. kurus gi boo ko tegee foo ko war te teg mu ne danga maa gën yaa ma gën ba di ma teg fii dégg nga wax. te boo ko deful yàlla rëq sa lu ne danga koy teg ci teguwaayam wala yàlla rëq sa moo gën a métti ci maqaama yi maqaamatul istiqaama sa mbaxana mi sax boo ko solee te ni mu ko tegee baaxul mbaxana mee naa na yaa ngi ma teg ci kaw est-ce que yaa ma gën orienté ma <laughs> mbubb mi nga sol boo ko solee te waroo ko sol toog barab boo war toog moo la naan fii nga laa war a toog man fii mooy sama place yàlla daf daf ma bind bind la pour nga sol ma di ma moyee yàlla fii mooy sama place jógal wala ma jëfalanteeg yow maqaamatul istixaama moo gën a jafe ci maqaam yi te Serigne Alioune Diop toog na ci ba dem yàlla mosu ko sanctionné moo tax Seydi Seydil Hadji Malick naan ko ànd ak moom jub Alioune Diop jubal moo ko ko tuddee woon te magee na Seydil Hadji Malick 25 ans bàyyi Serigne Mor Diop magee na mën na ko jur ba pare bootu ci gannaaw Maodo kenn du Maodo. kenn du feneen bàyyi jàmbur mu toog sëñ Mor Diop a ngi nii ci parcelle yàlla na yàgg te wér téeméer tam lu teg yàlla na ko dund mu ngi fii ci parcelle démb rek laa fa jóge ci heure bii maa nga fa vingt cinq ans bàyyam magee na ko Cheikhul Hadji Malick terewul mu bootu topp ci ginnaaw tuddee ko Serigne Alioune Diop jubal ne ko ànd ak moom jub yàlla may ko maqaam boo xam ne doomam bu judd mu jox la tarixa bi ba ci Serigne Mor Diop. jërëjëf jërëjëf Xaaj Malick ëdd moom ma taxati doomam ba sunu baay Alaaji Mansour hmm. radiyallahu taala anhu dafa woy Seydi Xaaj Malick woy bu yéeme si afil basitati istifham bi waaye dafa def ba mu yàgg mën ko zayyanta sunnata mel law laahu mën ko nag da nga fekk ñëpp nu bëgg a xajamal sunna rasulillah nga ñëw taaral ko yaa ko taaral taaral pire mu ne ko nag yaa ustaasu Sindiidi bugguma dagg waxtaan bi rek ba ma préciser si loolu tabarakallahu moo tax kenn ku ne nañ la bàyyee li yàlla may kenn kenn tuuti lewul na ku xam yàlla dayoo ku xam yàlla ni mu toll ku xam yàlla sañ-sañam ku xam yàlla li mu am ni mu bu compee jox la rek war nga xam ne ku rëy ci moom dafa yaatu te ñëpp xaj nañ ci. Sey Seydil Hadj Malick. yàlla li mu am dafa yaatu te ñëpp xaj nañ ci nañ xajalante rek. wa ida qiila lakum tafassaxu fi lmajalisi aw fi lmajlisi fasfaxu yafsaxi laahu lakum. jërëjëf Haydara Karara. loolu barab la waaye xol bee ëpp. la ilaha illallah. kon fa la jëm. balaa ma la majlis fii di am majlisu xol a ko jiitu. te majlisu xol mooy reflété ci kanam nañ xajal ñëpp wa ida qila lakum fi lmajalisi fasfahu fasfahu aw fi lmajlisi fasfahu yafsahi laahu lakum jërëjëf jërëjëf xol bee ci jiitu yàlla ne ubbil xol bi ku ma la ne xajal ko ci xajal ko ci donte man yàlla maa ko moom hmm? waaw sëriñ nit ku baax la bàyyam sëñ Aline Diop ci nitu yàlla yu mag yi la bokk mu ne Seydil Xaaji Malick moo ko joxoñ ne min xulafaa u Cheikh Sidi Ahmad Tidiane moom sëñ Aline Diop te daanaka kenn xamu mu nga fële ci daayaay jóob tëdd tëddaat tëddaayam bu rafet boobu boo demee buñ la newut kii la doo ko xam ku magee Seydul Xaaji Malik vingt cinq ans mën na ko jur waxtana waxtana yaa shérif bootu nag ci gannaaw Maodo. lu Maodo wax rek doy na ko. jël njabootam yëpp jox Maodo. te Maodo jàngalu ko araf. bi muy ànd ak Maodo dafa xam lépp. Maodo li yéeme ci moom mooy ki képp koo gis ci ron Maodo. dafa ñëwoon ngir def Maodo taalibe faf nekk taalibe. ndax dafa jàng benn ar dégg ko ñuy wax Maodo yaakaar ne war na ko convaincre. loolu la de. wallaay ndeysaan ndax bu mag ñi ñi mag ñi bu njëkk dañ daan wër di jamante. léegi la xam-xam neex na nga toog di mbeppi mbeppi rek kenn du la jam. mel ni man. téléphone bi baa ñu waaye bu njëkk. balaa ñu laa nangul sa xam-xam. say baqate ne bàcc ci biti. fu ne nit dana fa jógee ci senegal tund wu ne nit dana fa jógee ku mel ni xaadima jaxate ka la nga xam ne pankum xam-xam la woon. raw ñu <laughs> bare bare bind lu bare bare bu di génn ne diw borom xam-xam la day waaxu ji ba ca moom di jamanteeg moom moo indi Maodo ba mu yónnee di ko abbu téere arut xam nga lu mu tontu Maodo dem leen ne ko doomu soxna du abbu téere da koy taalif bii muy abbu maa ko taalif na góorgóorlu Maodo juróom-ñaari fan la tëju bind arut sharha ko yónnee ko ko wax ko alhamdulillah la ko Maodo tëjee moo ko yéem mu nag wii di nàññi ci biir dee bii dee ñu bari xamuñ ko xaadima jaxate kala mooy wax mu nag wii di nàññi mooy di mbuu ci biir dee bii ñu ne mu ne bu fi màggee kenn dootul naan lu dul ci ndigalam te xaadima jaxate kala moo dalal Sëriñ Tuuba laxdari maa la ko wax. ñoom hmm, ñëpp moo leen mag. Hmm, maa la ko wax. moo dalal maam borom Touba Laxdari moom xaadima jaxate kan te booba du tiijaan ah ah boobu du tiijaan de boobu du ma tudd tuuti tiijaan damay bañ ñu yaakaar ne damay xas ñooñu wala damay tuutal ñooñu boobu yàlla booleegu ko ci tarixa tiijaan jërëjëf. <laughs> waman lii ja looloo ko indi. waaw looloo indi daal di yàmbi waman li ne li ma jàng yëpp te bër bu set mar waa ngi may bëgg a rey te li ma mar du xam-xam ndax am naa ko ba mu doy man xaadima jaxate kala kilifa laa amut kuy sama kilifa wa man lii bu ustaasin kilifa lay ut kan la comme napp du moom mu ne daj naa waaji nag mooy Cheikh Seydi Ahmada Tidiane jërëjëf jërëjëf ah, muy xaadima jaxate kala jërëjëf ay dara ah. jërëjëf ay dara yal nañu yàlla dolli sutura waaye xoolal xoolal fa mu jaar ak Maodo. ay eh, maam Asiya ngi fi. jéey hmm? jéey maa ngi la doon seen bi ñuy julli timis jéey jéey moom surtout maam Alaaji Rawaan Ngom la Paal. Hmm? waaw waaw waaw dinaa la wax léegi ci buñ paree incha allah ndax njaboot dégg nga As kon sa turandoo Xaaj Malik hmm. yal na ñu ko yàlla fayal fa farixa biha mhm. xalaxallahu min tilka nazra mhm. malakan yas firi ko zunubahu illa yawmil xiyaama wallaay wallaay maamam sayiduna muhammad moo wax ci xadiis boo eggee ci téere bi ñuy wax lu baabul xadiis moo nga fa mu ne man képp koo xamante ni nazara xool na ilaa wajhi la aalim ci kanamu borom xam-xam walliyu nga ne jàkk ci kalamam rek di xool nazratan akub xool fa farixa nga bëgg xool bi nga koy xool meroo ca mais danga ca bëgg xalaxa dina bind allahu yàlla min tilkan nazra tukkee ci boobu la xool malakan malaaka malaaka bi nag mission la ko yàlla di sant mooy mu toog ruq rek yastaxfiru mu lay jéggalul zunubahu say bàkkaar illaa yowmil qiyaamati ba yowmal qiyaam taxaw kon xool ci kanamu wàllu yi rek mën na tax nit tàbbi àjjana ah. sëriñ bi dafa am fu mu ko teg ah, ba sax maa ngi ko teg ci li Seydina Cheikh wax ne man yuhibbuni Seydina Cheikh ne ne ku ma bëgg man Cheikh illaa saara lu dul dana mujj nekk wali yan di waliyu balaa dee Seydina Cheikh ne boo ma soppee rek balaa ngaa dee di nga nekk waliyu donte doo tiijaan alhamdulillah na sopp ko rek la wax moom Seydina Cheikh nee na boo ma soppee rek balaa ngaa dee di waliyu te bul jël tarixa bi de yoonam newu ci nee na daal sopp ma man Cheikh rek man Seydina Cheikh Ahmada yi boo ma soppee doonte doo Tidiane balaa ngaa dee di nga nekk waliyu wallaahi wallaahi kon ñu jox la tarixa bi njëkk la ko jox